Salut les amis de Sport TV et de Babo Show. Merci encore gars de la confiance renouvelée. Merci Louis du like. Merci Louis des abonnés. Merci également Guy des bails des commentaires. <clears throat> Un plaisir renouvelé chaque fois du partage une information yi Sénégal et FIFO fu 14 régions du Sénégal

l'actualité on continue gars actualité bi ñu fas waxtaan li nga xam moy mauvaise nouvelle bi am ci équipe nationale du Sénégal ak jëm ci li nga xam donc Youssouf Sapali Sabali mi décidé ne gars day arrêté li nga xam nak mo jëm ci carrière internationale la laata boobu gars c'est officiel hein Brahim Diaz daan né rejeté convocation bi nga xam nak la Roja defal nañ ko pour opter officiellement pour ñi nga xam donc le Maroc donc Brahim Diaz wax nañ ko bu donc il va jouer pour l'équipe nationale euh, du Maroc les Lions de l'Atlas nga xam entraîneur Facile, il faut jouer Maroc nag ngi di coupe d'Afrique 2025 Nous ñu organiser mais également coupe du monde 2030 et aujourd'hui Brahim Diaz dañ bëgg mu tête de gondole par rapport à nous. donc effectif équipe bi ñu je pense que les Maroc ils vont avoir une très très bonne équipe mauvaise nouvelle gars yi Youssouf Sapali Sabali le meilleur arrière latéral hein, sénégalais actuellement du moment l'un rek laay moy coupe d'Afrique bi bañ ko Sénégal di gagné joué ou par blessure motax ñewul won mais sabali gars nak dafa jël décision arrêté li nga xam carrière internationale am euh, selon rek yene kay bi di euh, et nos confrères de desport mom nak di fatali gars parce que fi la ñu leen la première fois euh, bi mu ñëwee sélection en équipe nationale c'était en novembre 2017 le won ñu amoon double confrontation contre Afrique du Sud waron na jëm ci qualification coupe du monde bi sabali fa la ñëwee won gis ngeen la suite qualifié ak Sénégal coupe du monde il a participé à tous les les grands événements du Sénégal man de Souma ma xamna xam naa Sénégal yu bëri su buñ sañoon du bay carrière mais gis ngeen tan yi blessure ñoko sonal si la waxtaan Ali Aliou Cissé ne jël na décision personnelle pour l'instant fa lañ ci mën yam décision personnelle la jël ne fay consacré wu ak li nga xam donc club am et tout loolu la wax moom nga xam gay temps yi blessure dako sonal Youssouf sabali le joueur sénégalais bo xam gay marqué na histoire au Sénégal mun musuma gis arrière latéral bu élégant et nii polyvalent ni mën jouer gauche mën jouer droite ñu ñak ñëwam nak dina wañu lu bari ci Sénégal par rapport ak euh, li ñu mais c'est vrai que aussi Crépin Diatta def na la différence bi passé mais sabali c'était autre chose sabali c'était c'était franchement autre chose gay hein franchement euh, musuma gis euh, retraite international bu ma ni ni quoi man bu sabali mo sincèrement voilà daf ma naqari si c'est confirmé bien entendu de Bernard naan suñu confrère yu des sports ñoko ko joxe ne sabali daal euh, liste Aliou bi du ci bokk parce que dafa waxtana ki xamé xam ne doo ko Aliou Cissé arrêté carrière internationale am comme on dit ah pour d'aller consacrer au ci club am gars yi information ñu bëggon jox yéen nak joxe leen seen xalaat lan ngeen ci gis su baaxee ci yéen su la on continue à s'abonner gars sur sur sport TV mais également sur Baba Show